di amaan mbégte ak contentement di jàkkaaroog yéen ci fii suñ émission jikko tey nag suñu ñaareel thème dañ koo jëm ci njariñu sàkku xam-xam sàkku xam doon loo xamante ni si lu am am solo la ndax ki nga xamante ni dafa xam ak ki xamul du ñu yem mukk ndax kat suñu borom a ngi koy wax ci alxuraan naan hal yastawi alladina yaalamuuna wala alladina laa yaalamuun ki nga xamante ni si dafa xam ak ki xamul duñ mas a yem kon sàkk xam-xam loo xamante ni si lu am solo la mit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañu ko digal ndax ma ngay wax naan talabul ilmi wala fi siini de sa ko xam-xam donte da ngeen dem ba sin kon xam-xam don na lo xamanteni si lu ama am solo la ta arabi dañuy faral di wax naan ja'il udwu nafsihi euh, leer moy nonu boromam kon nit ki nga xamanteni ni si jangul koku ku jahil lañ koy wowe moy ko xamanteni si dafa réer ta ñi ngi wax ni amna ko xamanteni si dafa massa tawat mu nekk ci bi mu feebaree borom këram yóbbu ko hôpital bi mu ko yóbbee hôpital ñu bindal ko garab ni ko da ngay naan doom suba doom boo añee doom boo reeree bi mu naanee loolu nag yëg ci yaramam ni xam moom mi mi ngi xaw a tane mu wax ko borom këram mu ne ko ginnaaw par benn doom rek nga naan xaw a tane kon jëlal garab gi yëpp naanandoo ko soo ko defee moom da ngay wër pérék bi mu ko defee dafa mujj faat kon loolu mooy ñàkk xam ngam ñàkk xam moo ko wut euh, yóbbee ci loolu nga xamante ni si moo ko dal motax xam-xam dafa am doon lo xamanteni su am solo te nit ñi li ñi rawante mi ngi nekk ci xam-xam na suñ borom euh, suñ tuba mi ngi daan wax naan waalam bi annama tafawutul wara bil hilmi wad diini yakun fas nit ñi li ñi rawante mi ngi ci xam-xam ak diine kon xam-xam tamit buñ ko waxe moy lepp sirek xamanteni si rek dang koy sakku diko xam da suñ abdullah Lahad Mbacké daan wax naan xam-xam mom xawma bokku ca kon lepp lo xamanteni si dang koy euh, sakku rek lolu xam-xam lañ koy wax muy xam xam nasaraan bi muy français anglais arab loolu lepp xam-xam la bi ci gën nak dafa nek xam-xamu diini waye lepp lo xamanteni si rek koy jang xam-xam la kon dafa am solo kon na nak ci ñun ñi nga xamanteni si ñoy ndaw ñi ndaw buñ ko waxee dafa wara xam-xam ndax ndaw bu jangul bu maggi dina ko reccu lol la seigne touba di wax ci nax ju xadal wax lam bi an man aba taalluma waxta siba sayulaqi nadama kep ko xamanteni si ba nga nekke ndaw baye nga jang xam-xam sakku ju xam-xam boo nekkee mag di ko réccu kon ndaw ñi nañ gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci sàkku xam-xam sàkku xam-xam nag bu ñu ko waxee doon na loo xamante ni si yombut doon na loo xamante ni si tamit metti na lool ndax boo nekkee ci sàkku xam-xam dina la teree lekk dina la naan te dina tax tamit daanaka doo tal dara ci àdduna bi ndax xam-xam moom doo ko jox leen mu jox la léppam da koy jox sa lépp mu jox la leen nam rek moo tax kon sàkku xam-xam dafa doon loo xamante ni si lu métti la te mënut a yomb sax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko Seydina Jibril di ko jàngal dafa métti woon ci moom ndax daka xoj ni ko iqra mu ne ko maa ana bi qaari mënumaa jàng mu xojaat ko ni ko mu ne ko maa ana bi mënumaa jàng mu ko ba mu ñett yoon ni ko iqra bismi rabbika allazi xalaq ba fa aaya ba yem kon segam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci jàngoonteeg noonu asamaa ñun ñi nga xamante ne sii nii ñun ñooy ay ñi nga xamante ne sii ñooy rey ci ñoom kon sàkku xam-xam doonul loo xamante ne sii nii dafa yomb takat xam-xam don na lo xamanteni si da fay leralu xor ta xam-xam ki nga xamanteni si daf ko am du bokk ki nga xamanteni si am ko ndax seigne touba ma ngi wax ci no jox dal aj naan ilmu yuhi qalbi man taallama kama yajul hama. ki xam-xam day leral xol ki nga xamanteni da koy sakku ta day leralu xol comme ni nga xamanteni si ni non la gumba nim koy ni koy dimbalé ndax comme ça gumba bu nekkon ci yoon mom kasse dox man na faqastalu man na gañu lu nete man nako na ci dal mais su fekkinte ne amna ku andal ku koy wan yoon bi kon man na bañ faqastalu dara man naka dal xam-xam tam ñu ngay misal ci lenn su fekkinte ni si da ngay dugg ci neeg neeg ba dafa bo taalé lampe ba kon neeg ba fay leer ba lo bëgg lo sét lu leer rek man nga ka gis su fekkinte ni sa fayu da nga euh, lampe dafa fay nak boy dugg man nga tañox man nga daanu euh, man nga faqastalu kon xam-xam lool lay jariñ ci doomu adama daf lay leeral sa yoon bi nga xamanteni si mom ngay jaar naa Seydina la karamallahu wajhahu daan na wax naan nit ñi de soo leen daan soo leen di misaal ñoom ñëpp ay naataango lañ ñoom ñëpp ay mbokk lañ seen baay mooy xaadama waaye seen ndey mooy xawaa te bu ñu fekkee euh, këpp koo gis ci ñoom koo xamante ni si mi ngi as mi ngi tiitaru ci askan na xam ne moom mi ngi tiitaru ci ban ak ndox te mu ni bu fekkonte ni si euh, ndamu dafa dagan tiitaru dafa dagan kon war a boroom xam-xam bi ñoom ñoo war a damu ñoo war a tiitaru ndax ñooñu ñooy tekkal nit ñi jëmaleen ci njub te kenn ku ci nekk sa kemtalaay la ngay def ca lu ci lu baax rek loolu mooy tom tombeek sa daraja te buñ doon misaal dañ dañ naan rek nit ñëpp faatu nañ waaye borom xam yi ñooy dund ndax ñoom ñooy dundal xam-xam kon ñoom ñooy dund kon xam-xam doon na loo xamante ne sii lu am am solo la ci doomu aadama may soññ ñi nga xamante ne sii nag dañuy jàng di sàkku xam-xam nañu góorgóorlu te xamante ne sii nii sàkku xam-xam doonul loo xamante ne si dafa yomb doonul lu neex Euh, Sëriñ ba daan nañ ko wax ci nax ju naan waxlam bi an na ilmu saxbun laa yunaal illaa bi am si nafsi nee na xam lu jafe kenn mënu koo am lu dul ci sa teeg bakkan dangay jànkantoog ay coono lu ne di ko daj mais yow la ngay yitt la lay sa yitte rek mooy sàkku xam-xam bi na doon sa yitte dina tax daanaka doo tal dara ci àdduna ki nga xamante ne si dafay jàng dëgg-dëgg euh, daray àdduna dootu ko ñor ndax xam-xam bi rek moo koy kii moo koy xatal rawatina nag ñun ñi nga xamante ne si ñooy xale jigéen ñi ndaw ñi li gën ci ñoom mooy sàkku xam-xam ndax boo sàkku xam-xam day tax doo am temps te am temps dafa doon loo xamante ni lu danger ci jamono ji ndax boo amee jot moo lay yóbbee ci ngay def loo xamante ni si ëllëg di ko réccu te nit ki nga xamante ni si nii dafay sàkku xam-xam kooku yàlla dina dina dina dina dina tax ba du du am benn jot ndax boo xëyee yaa ngi jàngi te soo wàccee yaa ngi xalaat leçon yi soo xëyaatee yaa ngi dem jàngi doo tal doo tala fo doo tala def yenn yi moo tax képp koo xamante ni si yaa ngi sàkku xam-xam amal ni am nga sens bu rëy ndax lool rek dina tax doo mën a bokk ci yi nga xamante ni si nii ñi nga xamante ni si da ngay dégg ñu naan diw moo fi def nangam ak nangam nit ki nga xamante ne day sàkku xam-xam dëgg-dëgg te defee ko na mu waree loolu lépp yàlla mën na ko ci musal ndax du am jot boobu du am jotu caaxaan du am jotu fo kon xam-xam ñu ko loolu rek jar na di sàkku xam-xam te nga xamante ni si ki nga xamante ni sii nii xam-xam dalay jariñ fii tamit dalay jariñ fa fa ñu jëm ndax ki nga xamante ni si jàngul bu demee ba ci biir bàmmeelam suñ koy laaj ca xam-xamam rek lañ koy laaj ci euh, jàng jàng diine lislaam ba nga xamante ni si boo duggee ci sa bàmmeel la nga jàng euh, luñ lay laaj naan la man ka su fekkente ni si yow xamoo woon jàngoo woon doo mën a tontu kon nañuy waajal ëllëg nañuy waajal ëllëg te ëllëg nag fii rek lañ ko mën a waajale kon képp koo xamante ni si nii am nga sa doom nang ko jéem a dugal mu jang mu xam dinem bu fekente ni jang na ba xam dinem ba pare nga dugal ko mu jang nasara ndax lolou munta ñak ndax dañu nek ci aduna bi lañ nek kon dine jang dine kese Du, ndax man nga xam dine ta do xam sa aduna so xam sa ci aduna bi kon lolou man na la yak euh, galankor lu bari kon nañu fonkat jang bu jangé dine ba pare nañ jang nasaran bi jang anglais bi ndax lepp lo xamanteni ci rek xam nga ko kendo la ci mana nax kon lor rek mo nekkon suñu tam tay ñu leen di wax naan wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu aam wa antum bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh